Euh, salaamaaleykum chers internautes Dak Médina yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Dak Médina waaw ñi ngi fii nag tey masati leen nekk suñu biir émission muy waajal tabaski waaw émission bi du ma ci wéet dama ciy fekk sama doomu nday ñu naan ko sëñ Mbacke waaw mais sëñ Mbacke ziar naa la doomu nday waaw law maa lay delloo ziar law ñu ngi jug tabaski ji. waaw mais law tendance bi lan la. waaw mais bi est-ce que du xar kese. mais law du xar kese parce que gis nañ kuy def pédicure manucure. la waaw mais waaw nga dëgg ak ñiy jaay soble mais gis nañ fi tailleur yi tamit law. waaw mais jaay tissu lañu war a njëkk a seeti avant ñu seeti tailleur eh, law loolu dina doy de événement la de. non ma seetlu leen fii. waaw non du yomb tey. waaw nañ dugg ci biir xool. ah ñu dugg ko. ki may njëkk a laaj tey ci marché Tilène bi mi ngi nii taxaw soxna si na def. maa ngi rek. noo tudd. Yacine Diaw. Yacine Diaw waaw mais Yacine lan moo la indi ci marché bi da ngay jaay wala da ngay jënd. non damay jaay si. lan ngay jaay. gis nga ay bagage xare rek laay jaay pose xef gis nga yaa ma a xam robe ngi nii. Ah. ak sa koche. préparé tabaski gi rek. non daa mel ni client yi ngi ñëw de. moo ñëw ndànk ndànk rek tabaski gi dafa mel ni amul xaalis nag. gisaguma gars de. Ah. waaw fu ñu ne. mais donc dañ ah man damaa bëgg xaalis bi dikk nag waa gars yi fan lañ nekk. waa Yacine waa lii lu mu doon. noo dundee fête. waay fay tabaski gaa ngi nii rek ma koy waajal nekk ci bagage xale yeeg pause xef bi yaa a gën a xam. est nañ xam lan ak lan ngay def. damay pause xef. ak lan damay jaay ay bagage xale. Ah. rob yaa ngi nii yaa ma gën a xam. waaye damaa bëgg a xam nag fu client yi ne ana xaalis bi. lii de laaj client yi déglu leen Yacine Yacine dafa ànd ak filingam Yacine wax na li muy jaay client yi kon boog ñëw leen fii ci marché ah, Tilène ngeen defante ak Yacine waxal woote. wooteel nag woote wool ma gars yi ñu dikk nag. ah waa nag lii nag lu leen fi na xari lii taabul bu rafet te yii rob may pose xef yi xef yu baax waa na gars yi. la moo tax nga préféré euh, jaay lii. ah xanaa bëgg rek. Hmm. ndax dama yaay jaboot jaboote bëgg xale yi bëgg bëgguma kenn mer mu wutal leen rek ay bagage lam sakos no day baax ans bëgg seen yaay yu bëgg posal leen xef yu baax bu ragal dara dinañ ñëwaat day nooy kon maa ngi leen di xaar de léegi ah? mm. <laughs> tabaski moom dafa yaatu ah sëñ Mbacke mhm. léegi léegi dugg nañ am ñu ñu seeti woon mais tey dañu ñëw seeti maître tailleur mhm. dama koy bàyyi mu nuyoo wax moom mooy kant salaamaaleykum waaleykum salaam papa na def ça va bien Ousseynou Faye dundee client yi ñu ngi ñëw wala ñëwut waa client yi moom macha allah client yi moom ñu ngi ñëw moom ñu ngi ñëw gaa yaa ngi ñëw vraiment waaw. kon daal ren euh, tabaski ren bi utanaag bu daaw bi. non bu ren moom ute naag daaw bi parce que daaw bi corona bi moo ñu xawoon a sonal quoi. corona bi. mais ren moom macha allah xam na li ñu ñëw luwul ci corona bi korité bi passé parce que yëpp dañoo ñëwandoo ci tabaski moo tax ñun dañoo teel a fanaan quoi yooyu dañoo teel a fanaan di ñëw. si Mbacke loo koy dénk. waaw kon man ni ma ko déggee def naa da nga tàmbalee veille waaw yàgg na tàmbali naa veille yàgg na mat na au mois ëpp na ko sax ëpp na ko sax waaw parce que dañu gis seen tailleur yi dañuy jël ba jël lu ñu munul ba jour fête yi dañuy am ay problème yow est ce que da nga bokk ci ñoon wala bokkoo ci non ñun moom dañuy programmer mais nag parfois dafa am client yoo xam ne dañuy ñëw nekk say waa yoo xam ne peut être mën na am dañuy jëkkul woon mais bu ñu jëkkoo rek xam nga bu ñu ñëwee loolu mën a recette quoi foog nga góorgóorlu mën leen a ñawal xam nga il faut nga respecter ñooñu aussi waaw kon looy dénk client yi rek ak sa mbokk tailleur clients yi daal nañu muñal tailleur yi tailleur yi aussi nañu góorgóorlu pour mën a récupérer ñaw yi ku mën a récupérer ku mën a ku mën a ku nekk mën a jot sa ñaw ko waaw loolu rek laa leen di digal ñu fanaan nag fanaan nag di góorgóorlu uh-huh. parce que lii ay fan la rek quoi uh-huh. waaw moo tax ñun il faut ñu sacrifier ñun ñuy nekk tailleur yi mën a góorgóorlu pour affaire yi jeex quoi yàggul kon na rafet rek waaw na rafet rek na rafet waaw nañ rafetal rek nañ rafetal rek dafa am lu ma xaw a gis si xar kanam bi dafa mel ni ren dafa am xaalis ñu ko gisee ni dafa mel ni xaaj bi bëri na ren non loolu lay ndural xam nga daaw dafa tombé covid law dëgg la mu métti loolu ci tailleur yi impacté ci ñoom waaw ñu leen di ñaanal rek gars yi jël si seen ñoom loolu rek la ñuy ñaan nag waaw ñu mën ñu mën ko récupérer man quoi maa ngi maa ngi gërëm maa sama waa ji maa ngi koy gërëm bu baax a baax parce que sama waay la quoi vraiment maa ngi leen di di leen sant kii bi bi nekk site bi gën a siiw ci Sénégal loolu la ñuy ñaan quoi vraiment